ñu ngi amaat kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi na leen jàpp loxo nuyu la ziar la bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanalaa réew mépp jàmm mais nag euh, maa ngi jiital nuyoo bi ci euh, Mamadou Seck suñu DG teg ci Khadim Soumaré directeur programme nguy Fama maa ngi koy ziar Doudou Pro bu ma tuddee rek tudduma bàyyi naa bàyyiwuma kenn ci RTT TV kon boo ko maa ngi ziyaar ñëpp tey nag naa kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax jàkkaarloog sama tonton fas yéene waxtaan ak moom muy tonton ci Kouaté promoteur gis ngeen lim fi euh, tëggoon bu yàggul dara mu fas yéene waxtaan nag ndax parrain la ci bésu Gawsu Diop biñ jëm le 3 février fële ca Manufacture des Arts incha allah mu doon ci parrain nag di doomu jaxaaw Gawsu di doomu jaxaaw kon boo ko ñaari doomu jaxaw a daje ten tonton Thié maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ah, di santaat yàlla di julli ci yonent bi. Mhm. di sant waa RTT TV di ci jeetal eh, le PDG Maodo Seck. Mhm. Eh, di nuyu aussi Gawsu mi nga xam ni moom moo waral bés bi le 3 mhm. incha allah rabbi. Eh, di nuyu tous les Thiessois yi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy déglu. tonton Thié loolu leer na ñu ngi lay nuyu bu baax a baax naka yaram bi yaa ngi tane bu baax. waaw am nañu féex bu baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah tout aywa pareil moi aussi. ok maa ngi ñaanal famille bi yëpp jàmm famille Kouaté yëpp jàmm mag rakk ak njaboot gi yëpp tonton Kouaté tey nag dama ñëwoon seet si la sa xarit sa jarbaat moo ñëwoon seet si la ñu waxtaan tuuti ci tonton Thié. Mhm. bala ñuy dugg ci le 3 février ndax le 3 février moom ñëpp a koy waaj kuñ tàllal micro ne tonton Thié mooy parrain bi rek ñu ne pare nañ ñoom bés bi rek la ñuy xaar ma egg si su ma bëggoon a xam kan mooy tonton Thié. waaw feet tonton Thié benn ndongo la bu dëkk jaxaaw juddoo jaxaaw màggee jaxaaw defee lépp jaxaaw jàngee jaxaaw mhm. euh, nekk jaxaw aussi li muy def aussi mun ñëw fii ci jaxaaw di ko fi defee mhm. euh, tonton ci aussi nekk na coordonnateur départemental bu ARC tonton Thié aussi nekk na président label Thié production Thié production waaw ñu di bu yàggul dara le 31 décembre bi nga xamante ne diggante euh, kii fils de Samba Diaw ak nga yëngal bu baax a baax fële ca njaw ma Makodo boobu journée jàll na tonton ci est-ce que mu ngi dégg malaat yeneen journée ci kanamam. waaw balaa ñoo tàbbi ci beneen journée bi dañuy wax ci journée bi nga xam ni moom la ñu jàll ci 31 décembre di wax mhm. ni comme ay ndongo lañu rek te mhm. doore ñëw ci arène bi. Mhm. Euh, ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant ñi nga xam ne aussi ñoon ci accompagné woon ku mel ni. la RTT TV ak uh-huh. Thiès Média uh-huh. euh, di sant ñi nga xam ni le Thiès waa di sant aussi les promoteurs di sant aussi le lutteurs uh-huh. di sant aussi tous les journalistes yi nga xam ne ñëwoon nañu fekk ko di sant aussi label ci production bu baax a baax euh, bëgg a ñëwaat ci sa question bi pour wax ni ci euh, ci production amul tànku ginnaaw man Thiès ma ñor. Thiès mhm. tax may def et yaakaar naa ni la jeunesse de Thiès aussi ñoo ma yëkkati. Mhm. et yaakaar naa ni jàpp naa ni le 3 mars incha allahu rabi dinaa def drapeau Boy Niang Jekkaala incha allahu rabi. dinaa def drapeau Boy Niang Jekkaala mais tonton Thié nga joge ci drapeau bu mag boo xamante ne moom la ñëpp doon xaar muy sa jigéen sa sa sa xarit Anta Babacar. ñu àndoon ak yow dem ba Dakar dem eh, joxe ko jox ko drapeau bi mais ñu déggoon waa pikin tamit mel ne ñoom ñoo gën a bëgg tonton Thié tey tonton Thié waa kees dañ ko soxla nga jàll ci Anta Babacar ñu gis nga dugal ci ñoom eh, politicien bi nu mu moom di sa xarit di sa genn wàll te yaakaar naa ne sax am na lu ma dégg ñu ne tuddee nga ko doom waaw loolu dëgg la balaa ma jàll ci suma xarit masal yi damay ñëw ci ki nga xam ni. mooy suma présidente te fa bokk. muy arc. Euh, di Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom c'est une dame. boo xam ni dafa gëm changement gëm relève. ñu gis ne Sénégal aussi am na fu mu toll. ñun ñu ànd ak moom gëm projet bi nga xam ni moom la yore muy projet boo xam ni dañ ko gëm. Mhm. gëm nañu Sénégal doomu Sénégal mën a tekki si Sénégal. Mhm. gis nañu aussi moom taxawaayam ci la jeunesse. Mhm. gis ni aussi moom mu am ngëm-ngëm ni. bépp doomu Sénégal jigéen comme góor mën na tekki fii Sénégal. c'est pour cela ñu ànd ak moom parce que aussi Sénégalu jeune la ñu nekk tey euh, toll na ci jigéen aussi yor Sénégal. Euh, beneen bi ci tegu ma ñëw ci suma xarit Mouhamed Lamine Massaly. Massaly euh, suma digganteeg Massaly kooku dépassé na politique. c'est plus qu'un frère. c' est un ami il est tout pour moi. Mm-hmm. Massaly li muy représenté ci man. Mm-hmm. du ma tàyyi wax du lot di wax c' est un ami Massaly moom la sañ a lu ne moom aussi man la sañ a seqal lu ne. Mm-hmm. donc Thiès moo bindoo noonu. nous sommes tous des amis Thiès waaye. benn bopp la kenn mënu leen a xaar ñaar te Massaly dañu seq lu bari ma tudde ko doom doom ji am na 14 ans yaakaar naa ni drapeau moo gën a ndaw ci li ma tudde Massaly. ñu gisoon sa journée tamit euh, ku ci mel moom it mu ñëw fekke si sa drapeau tonton Thié yaa ngi ci politique bi ànd ak Anta Babacar ba uh, mën naa ne kees liy wër kees muy Tiwaawoon muy Mbuur yëpp yow yaa ko téye mais sa politique loolu du la empêché ak ñooñu ndax bokku leen parti euh, la relève la ñu wax Anta mm-hmm. Babacar Ngom dafa woote la relève mm-hmm. dafa gis ni doomu Sénégal yëpp la ñu war a dajalewaat mm-hmm. pour wax ni politique ay xalaat la. Mhm. loolu mooy que nit ki am na dimension nationale. Mhm. yaakaar naa ne tey fi tey am na xel yi. ak mhm. xol yi euh, mën nañu wute ci maanaam gis-gis. waaye yaakaar naa ni ñun ñoo bokk fii ñu dëkk muy Thiès. de delà de la politique on de des frères et des sœurs. yaakaar naa ni tey fi tey bu buñ koy wax période la rek day toll ci moment ba nga xam ni ku ci nekku ku ne dangay waree sa féete mais euh, jàpp naa ne ba ci biir kër yi sax am na ñoo xam ni. dëkk nañ ci kër gi te bokk nañ seen i li ñu gëm mm-hmm. eh, may wax ni tey loolu moom a gën a yombal parce que ku ñëw keroog ci le 31 décembre war na mën mm-hmm. a xam ni euh, tonton ci am na relation bu ne am na relation opposant am na ko am naa ko aussi ci biir ku jégi mm-hmm. pour wax ni aussi ñi ngànk réew mi aussi am naa ci relation boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ma ci am ci xarit sax moo ëpp ci ñi ma am ci opposition tonton Thié mës na voyager génn na dëkk bi dem ci yeneen dëkk à part waa waaw ci Thier nag euh, dafa mbapat. waaw ah. euh, tonton Thier dafa am jaar jaar bu extraordinaire. parce ah que tonton ci dafa di euh, doom joo xam ni. Mhm. wax dëgg yàlla dafa di soutien de famille. Mhm. mu nekk doom joo xam ni dafa mës a jóg di dox di dugg di génn maanaam pour. am loo xam ne dina ko sutoo dimbali ci ay waajuram mm-hmm. man euh, def naa ay ay dëkk yu bari mm-hmm. dëgg yàlla def na ay dëkk yu bari mm-hmm. macha allah donc di wax ni rek euh, Sénégal nag lépp lu ma am Sénégal laa ko amee lépp rek lu ma am Sénégal laa ko amee ci loolu rek may tàllal xale yi di leen wax ni euh, nit ki lépp looy ut rek na nga uti ngërëmu jur parce que damay wax ni xale yi tey lu xale ñàkk rek na ko seet ci waajuram man nag xam naa ne bi ngeen di yëg fii mm-hmm. romb ngeen benn soxna so xam ne mi ngi ci bunt bi toog ci mm-hmm. puus puus mm-hmm. euh, kooku tey jàpp naa ni man fu ma toll moom la te lu ma am aussi moom laa koy sante muy sama yaay di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex defal ko taysiir yàlla dolli euh, ay fanam ak wéram ba nga xam ni lépp loo xam ni doomam ji mi ngi koy mbébét mu fekk ko. amin amin loolu sax nag euh, gis nañ ko sa bëgg-bëgg ci say bët sax dañ koy seen ndax nee nañu jour ba nga ne da koy yóbbu màkk defe naa sa poste cent franc nekk ci woon. tey da nga amoon yéene bi pour yóbbu ko Màkka te déjà def nga ko. Mhm. loolu day dafa di chose boo xam ni wax dëgg yàlla. Mhm. ça m'a toujours marqué parce que. Mhm. dama doon xool sama yaay muy góorgóorlu ci man. di ma dimbali may jàngi. Euh, ma dem ba certain moment may gis suma yaay di mag euh, ma am yéene ci moom. ma ànd ak suma rakk. ma wara a ñibbi Dakar je crois bien dama doon ñibbi Dakar ma am benn suma xarit moo doon yóbbaale. mu teg ma ci motoom ñuy dem ba ci yoon bi mu crevé mhm. euh, fi muy taxaw di régler lu mu ko crevé ma xool booy ba ci yàgg mhm. suma xel yëpp suma yaay la nekk ma ne ko cheikh mu ne ma ne ko cheikh man année bi dama yóbbu suma yaay màkk mhm. ci ngëm-ngëm rek laa ko tegoon ak yéene euh, yàlla suñu borom dogal ni ci at boobu ma ko waxee laa ko yóbbu màkk may sant yàlla bu baax ci loolu ndeysaan tonton Thie dafa mel ne commencé woo làmb ji le en décembre ndax mosoon nga tëgg mbapat su mille juumul 2018 la woon su ma juumul yaakaar naa du le 31 décembre tegoon nga fi mbapat boo xamante ne 2018 la woon waaw xam nga tonton Thie dafa bëgg dafa mës bëgg sport Euh, yàlla def na ci dix 2018. tëggoon naa fi benn mbapat boo xam ne Pikine la woon ak Guédiawaye ak Thiès. mu nekk mbapat bu rëy boo xam ni wax dëgg yàlla dem na ba nga xam ni sax. dépassé na tonton Thié. donc may sant yàlla bu baax a baax ba nga xam ni. loolu jàll na ci jàmm ak salaam ba ñu dugg ci arène bi. loolu moo la motiver nga nga dugg ci euh, doon promoteur wala ci 2018 bi noonu. non c'est-à-dire euh, man sama dugg ci nekk promoteur. dafa di mbir moo xam ni. dama ko yàgg jàngat ci biir Thiès parce que dama gis ni Thiès ñu fi nekk nekk promoteur bariwuñu et yaakaar naa ne tey fi tey booy tudd lu ci ëpp dañuy tudd euh, suñu mag uh-huh. euh, suñu mag si di Diakhaté walla ñu tudd bay euh, Samba ma ne mais pourquoi pas man ma dëkk Pikine mhm. di jël suma alal di ko investir ci mbalu Pikine mais naa dellu Thiès mhm. bu ma delloo Thiès mën naa ut carte promoteur du ma yàqal dara suma liggéey mhm. looloo tax ma ñëw soobu pour dimbale la jeunesse de ok kon daal ton Thié ci mu jàllee ci promoteur muy ci politique bi yaa ngi ci ginnaaw Anta Babacar fas yéene ko pousse rek mu dem ndax léegi wax nga ko góor baax na jigéen baax na te dañoo soxla xale rawatina dañoo soxla jigéen ci suñum réew yow daal yaa ngi ci Anta Babacar waaw maa ngi ci Anta parce que dama ñëw Anta jox ma jox ma confiance parce mm. que tey ku ne dégg na tey yi nga xam ni bi mu jàllee pare parrainage ñu ne Anta mm. jàll na ci dix raisons. Mm-hmm. Euh, may santaat yàlla di julli ci yonent bi parce que aussi Sénégal dafa bari ay nit yoo xam ni loo wax ñu ne dafay dóor. Mm-hmm. Euh, Anta bi ma ñëwee waxtaan ak moom. Mm-hmm. mu wax ma fi mu foore man aussi ma ko fi mu foore fi ma foore. lu mel ni Thiès Kédougou Tamba loolu foor naa fa. yàlla suñu borom. dogal ni moom ci boppam moo am confiance. Mhm. ne ma ci euh, Tamba Kédougou du mhm. ca dem loolu dama la koy bàyyil. Mhm. yàlla suñu borom dogal ma dem fa yàlla dimbale ma jàll fa pare parrainage kon loolu dama ciy sant yàlla bu baax a baax. te xam ne aussi nit ki noo mer rek comme ni may wax rek. Euh, delloo ko say wayjur. donc man toujours damay sant sumay wayjur parce que defaluma nit ñi aussi lu tax ñu topp ma wala ñu may jox seeni yëf. Euh, mbir yàlla suñu borom la rek. ak confiance kon donc loolu lépp dañ koy santewaat yàlla suñu borom di santaat Anta Babacar Ngom. foo ma taxaw ci Anta parce que Anta sama digganteeg moom euh, waajur da cee am yoon. parce que man bi may dajeeg Anta papam papam laa dajeel Babacar Ngom. papaay Anta papaay Anta Babacar woo Anta woo benn cousin ñu toog. bi ñu toogee di waxtaan pour que ma accompagner Anta par rapport ak euh, la politique. Euh, le vieux Babacar Ngom mhm. proposé na ma lan laa bëgg ñu defal ma ko ma ne man li ma bëgg ñu defal ma ko mooy que ku ma jox cër jox ma sama dayo jox ma sama gëdd parce que mhm. moi je demande jamais de l'argent à qui que ce soit parce que mhm. man kenn moomu ma kenn du ma takk je veux qu'on me respecte bu fekkee ne loolu mën na am je suis prêt mu ne ma loolu rek ma ne ko mu ne ma woy ma ne ma defal lool ma ne ko ok donc jat jat nañ dem liggéey. man sant sa bëgguma aussi. Uh-huh. Euh, di liggéey en politique ñu may pousse. Uh-huh. bi ma waxee dama ne ko man je préfère politique gu escalier pas ascenseur. vous me laissez travailler. Uh-huh. donc loolu moo ma boole ak Anta may santaat papam bu baax a baax Babacar Ngom parce que. man Babacar Ngom moo tax may liggéey ak Anta kon maa ngi santaat bàyyam bu baax di sant aussi Anta parce que confiance bu mu am ba def ma coordonnateur mm-hmm. départemental bu Thiès mm-hmm. loolu dama ko ciy sant di sant aussi les yi nga xam ne aussi qui sont dans le département nangul ma ko mm-hmm. wax dëgg yàlla léegi laa jóge ci ñoom ci benn réunion boo xam ne pour élargir le bureau ñu ciy santaat yàlla bu baax di sant aussi les Thiessois parce que vraiment euh, man awma seen fay parce que ñu ne noodu ci daal mais biñ ko waxee ñoom ñëpp ñoo ci d'accord kon loolu mhm. lañ koy sant yàlla mhm. di ñaan yàlla aussi lii nga xam ne moom la ñu débbal muy élection mhm. yàlla may ñu ci ñu dem ci jàmm opposition comme pouvoir ñu dem ci jàmm ak salaam kii nga xam ni moom la yàlla jox ndam li rek ñu xam ni ñëpp ñu tàcc ko bu ñu xëy ku ci nekku ne xëy dem liggéey quoi voilà tonton Thie dégg nañ la ci social tonton Thie dafa dund loo xamante ne dafa metti ba tax na ku mu gis yeneen ak ko alalam ku mu gis yéene na li mu am mu partagé ko ak moom ndax nit ku nekk am na loo xamante ne dund nga ko ñaanoo yàlla koo bëgg wala koo xam dund ko ku ma tàllal sama micro rek loolu la may wax tonton Thié social te ciy dox tonton Thié muy ci équipe bu jaxaaw mhm. vraiment loolu tamit marqué nañu bu baax a baax ci yow. Mhm. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek parce que mhm. Thié dafa am jaar-jaar. man juddu ma gis sumay wayjur ñu yor dara. Ah, da doon metti trop ci sumay wayjur may toog di ko xool. mu nekk lu méttee métti métti ma koy dund mm-hmm. nekk xale à l'âge de douze ans laa jëndul suma yaay xaru tabaski ah, euh, dama daan liggéey di wàcc bu ma dama daan dem ji jàngi mm-hmm. pardon bu mu musaan a jàngi samedi ak dimanche laa amoon ak mercredi mm-hmm. damay dem nekk apprenti maçon lu mu la jox ah. di may fay sept cent francs ma jël cinq cent di ko jënd deux cent cinquante yi ma koy jox suma yaay di ko def di ko def di ko def ba tabaski jot ma dem jëndal suma yaay xar jox ko ko beneen bi tegu aussi quand je Euh, man dama judd ci famille bu néew doole. Mhm. donc mu doon metti je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Mhm. billahi wal kitaab bi ah mosuma tàlla sama loxo nit. loolu laa gëmoon te dama doon wax ni suma yaay mii. Mhm. man maa ko war a teral. suma baay man maa ko war a teral. donc je me suis battu corps et âme dama daan gis muy metti kon donc man loolu bu ma demee ba yàlla teral ma. dama war di lu ma am dama koy joxe barke salaatu faatiha sama compte bancaire cent franc am. du ma su ma yoree xaalis sama saak laa koy def ñëw indi teg ko. xool toute ma famille parce que dama yore famille boo xam ne dafa yaatu. Ah. fii ba Kédougou ginnaaw yàlla ak yonti bi man la ñu yaakaar. Ah. kon yaakaar naa ne tey man soxloo ma jent cent franc lu ma am. Ah. sama dépense bu nit ñëwoon dugg ci kër gi amul dépense ma ne madame jox ma ma jox. parce que foofu lañ toll. parce que nit ki mën nga xalaat tey mais suba yàlla la. yàlla donc c' ça c' pour cela que. a def social. parce que dañ ko dund dañu dund dans des parce que dama ne leen li ngeen am yàlla xam na ne awuma ko woon mhm. man benn mbubu laa doon jànge mhm. bu ngoon wàcc bu ma wàccee ngoon mhm. deux jours laa koy sol ma fóot ko weer ko bu ma xëyee suba dem jàngi et aujourd'hui yéen bu leen neexee weer bi yëpp ngeen sol lu leen neex voilà voilà voilà donc social moom euh, c'est très normal parce que adduna moom koo dimbali rek koo tane rek dimbali ko te yàlla rek tax quoi ndeysaan kàddu yi leer na tonton Thié wax nañu jaar jaaram wax nañu ay bëgg-bëggam waaye wax nañu ambition aussi rawatina ci Anta Babacar ak li mu bëgg réew mi waxatuma la kees rek waaye Sénégal wax nañu bu baax a baax boppam am nañ lu ñu xam ci moom ñu ko koy sante bu baax ndax vraiment dalal nañu waxtaan na ak ñun bu baax a baax lii kàddoom yi boo kon nit dëgloo dina xam ne waxi nit dëgg la te ndaw yi war nañoo roy bu baax a baax ci bëgg sa waajur bu baax ndax loolu moo ko indi ba fii kon lu waay mën rek sa waajur di dund góorgóorlul muy góor muy jigéen nañu góorgóorlu ci papa yeeg yaay yi bu baax ndax ñoo ñuy sauver ëllëg tonton ñu ngi ñëw nag ci gros bi mooy le 3 3 hmm. février Gawsu ndax Gawsu nag li nga def du sens mérite la moom mérito na ko bu baax a baax Kouaté mu nan laa def parrain nag ngay parrainam sax ndax commencé nañ ko ñun bu yàgg te waa Jaxaaw aussi ku ñu tàllal micro loolu la ñuy wax ñun bës ba rek la ñuy xaar ci moom pare nañu ci taxaw ànd ak moom jusqu'au bout ci lépp lu mu nekk Gawsu yëkkati nag ngay doomu jaxaw muy doomu Jaxaaw mu parrainé la bësam bi nga xamante ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar ci bës boobu mais loolu lañ ciy santaat yàlla rek parce que ah. gawtu dafa def rek lu mu war a def gawtu au delà de sama jarbaat sama doom la mm-hmm. parce que gawtu maamam ak suma baay ñoo ñëwandoo fii ci dëkk bi kon yaakaar naa ni moom maamam bu jigéen la ñu tuddee sama rakk bu jigéen maamu gawsu maamu gawsu bu jigéen moom la ñu tuddee sama rakk bu jigéen kon yaakaar naa ni gawsu dafa def rek lu mu war a def mhm. te incha allahu rabbi dina xam ne gor la ko siqal te bu mhm. soobee yàlla dinaa def lépp lu ma man mhm. pour que bésam boobu am taar ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi dégg loolu parrain bi lu mu wax le 3 février nee naa leen ku yéex ñàkk billet 2000 la VIP 5000 vingt heures mise en place bi ku yéex rek doo am place ndax tonton Thié bu egsee kii ñooñam rek kenn du xëj tey naa la ci waxtaan bi ñu waxtaan xam naa ba tuuti tonton ci vraiment amoon naa kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yow nii. Gawsu nag liñ naan ndox du bàyyi yoonam bàyyiwul yoonam ndax dégg li mu wax maamam ak waajuram bu góor ñu ay wëllëre la ñu woon kon Gawsu dafa ñëwaat rek eggale tabax bi lii da ko fee fekk fondement la woon da ko fee fekk kon macha allah mention spéciale pour Gawsu Diop euh, borom ciseau d'or euh, laf ci kaw ci kanam ci lu baax tonton Cee Mm-hmm. kon nga woo say mbokk woo say am di jàmm le 3 février ñu ñëpp ñu ñëw ànd ak yow fële ca manufacture des arts. loolu moom dama ciy woo Thiès waa yëpp rawatina mm-hmm. waa Jaxaaw mm-hmm. di ci woo sama mbokk politiciens yëpp bàyyi ma benn parti képp koo xam ni rek amoon naag yow jàmm ak salaam maa ngi la ciy woo te incha allah rabi ñi ma woo ñëpp dinañ ma wuy si di ci woo waa arc bi nga xam ne moom la bokk arc Thiès maa ngi woo ñëpp léegi laa ci doon waxtaan ak ñoom incha allah rabi gaw su moom euh, na taxaw rek seetaan te yore ciseau incha allah rabi ñun dinañ ñëw teg lépp bu ah soobee yàlla incha allah <laughs> merci beaucoup tonton Dieng amoon nañu kontaan ak mbégte dalal fii tonton Dieng si suñu seen la RTT TV ñuy waxtaan ak moom rawatina ci bésu Gawsu Jóob bi ñu jëm le 3 février fële ca Manufacture des Arts incha allah yal nañ ci yàlla yóbboo jàmm kenn ba a wute ba bës ba ñun ñëpp ñu àndandoo dem fa ndax borom Ciseaux d'or dañ koy delloo rek euh, lu mu moom wala ñu delloo ko njukkal comme niñ ko waxee sànq moom it dagan na pour ñu sargal ko ndax nit ku baax la nit ku gore la waaye taalibe aussi kon boog ñu ngi leen di jox dig daje ba le 3 février incha allah fële ca manufacture des arts allah. ci quartier ñu koy wax algasimu waaw fiis de Jaxaaw la juddoo fi euh, yaroo fi màgge fi jànge fi def fi lépp bon ñu nag day suñu xarit ndax waa bas âge yàgg nañu ànd bon ñu sax ñoo bokk mois ak année bi ñu judd et tout donc xam nañ ci moom lu bari bon pour commencer nit ku social la nit la ndax euh, vraiment bi mu jógee ba tey ci wàllu bi mu nekk mi ngi jàpp ci lépp euh, quartier bi ASC bi daayira yi barki démb cosaan gi fii vraiment mi ngi jàpp ci domaine yëpp daal mu nit ku baax di ko social di ko xam ni vraiment ba ci jumaa ji da ciy jàpp à tout instant lu ko nit woo daal mu ñëw social la daal ko am njëriñ la ci quartier bi waaw moom loolu biñ ñu ko déggee ndax euh, en parlant de Gawsu Gawsu sax day boo xam ni exemple la ndax xëy na at yi demewul noonu xale la parce que suñu kanam la juddoo bokk moom it ci famille bu rëy ndax ku xam maam wala Jibi Diop doon taalibi xaadir bu mag. waaw vraiment Thié moom grand Thié moom boo buñ soor waxtaanee moom dinaa si sawar lool vraiment Thié moom c'est un gars boo xam ne il est social. vraiment day dimbali néew ji doole di jàppale waa kojom surtout jaxaw bu ñu dëkk sax même ASC e bi da si def loo xam ne moom même bu munee jéem sax day def loo xam ne du ko mun sax wante foog mu def jàppale ASC e bi moom vraiment tout récemment motul sax deux mois suñu kër gi guy bi fa la daanu woon moo si njëkk a intervenir barke rasulaay quatre heures du matin ba guy gi di daanu moo si njëkk a def si dooleem def si léppam vraiment cee moom chapeau moom vraiment ku baax la. cee moom vraiment naqarul gis moom. cee bu boo tëddee ba quatre heures boo ko fëggee mu tijji la buntam soxla boo ko wax da koy def loolu moom cee moom vraiment loolu lañ ko xamee jaxaw waaye gaw si moom tam en plus suñu petit frère la ñoo bokk ndoo màggee fii si koñ bi moom vraiment moom ni mu def nii da ko war a def. waaw loolu moom incha allah moom dinañ si am satisfaction bu baax moom incha allah bu Thiès dëgg la waaw dëgg la moom incha allah politique moom Margal moom yàgg si moom lu ñu si souhaité moom mu am te ay victoire yu bari ànd ak ak soxnaam Anta Babacar Mbop muy jigéen boo xam ne moo mu njëkk am pare si Sénégal pour l'instant yaa ne yàlla jàppale tamit lu mu bugg tamit si Sénégal yàlla mbëbët ko mu am ko ànd ak suñu grand Thiès Thiès gën a yokk loolu la